lay wax mu daal di wax sànni. c'est-à-dire kooku am na si Sonko. non non je parle président Macky Sall. Macky Sall waaw. soo doon xool ay discours am nag euh, discours yi ñu. xam nga vraiment lii dañuy arrière la waat xam nga Macky Sall jeexal na lépp. Ousmane Sonko fi nekk. Ousmane Sonko moo nekk ci réew mi dañoo war a waxal instant bi Macky Sall jeexal na. mais Sonko mooy Diomaye. mais Sonko du Diomaye xanaa. mais Sonko mooy Diomaye Diomaye mooy Sonko. mais lu may jaxase lu may jaxase wax loolu mais lan laa jaxase jomaay jomaay sonko sonko jomaay ko tudd day naka ca des léegi ma ma doole si beneen ñaara mën kenn te ñett du bëri dama ne ñaar waaw moo kenn te ñett du bëri. c'est-à-dire toj ko nag. toj toj googu nga mooy li kenn mën ñaar moo ko daal. mooy ñaar ñi ñoo ñan àdduna ñaar ñee ñan. voilà kon il faut ma wax kay. tey jii mu ngi def mu ngi def tournée tournée tournée tournée jàmm ji. su fi génnee sa président xam kan nga yow tey président euh, Macky Sall mu kii mu tuddee sax Sonko mooy sa président. actuellement nii Sonko. yaa ngi jaawale institution yi de yaa ngi jaawale boo duggee ci problème institution non mu ngi jaawale comprendre non boo foofu moom boo fi duggee da ngay daal parce que fekkee ci institution yi lañ ko topp après Diomaye Amadou Mame Diop la ah oui non non du premier ministre quand même du premier ministre tey jii jomaay bu puusan tey tey tey kan ma fi toog président assemblée nationale non non non man li wax bul jaxase débat yi xoolal Ousmane Sonko mooy premier ministre suñu amee jafe-jafe ci dëkk bi dañuy wax ak Sonko non du sama problème li ko dénk mooy sama problème man réew mi ma ko dénk réew mi ma ko dénk mooy sama problème yow Ousmane Sonko mënut a déjurer yow réew mi ma ko dénk lan la fi diggee lan fi diggee loo xamante ni yéen diggoo woon ko fi lan fi diggee te Ousmane Sonko lépp lu mu leen digg Ousmane Sonko lépp lu mu leen digg waaw da ngay déglu Ousmane Sonko lépp lu mu leen digg Bassirou Diomaye si nelawu si hmm. yendooru si te mu ngi si damaa bëgg nag nga ne ma président mais mais yow yaa gëm ne tey jii Ousmane Sonko. du président du président. léegi yow yow dem nga yow dem nga Sonko ay nitam sax suñu wax du tudd Diomaye yow waaw waaw mais mais Diomaye sax duñ ko tudd waaye yow waaye loolu yàlla gënu leen maa xam ne du président bàyyi li ngeen di def déjà bu bu billahi da ngeen a jaxase sax militant yi moom falloo Diomaye suñu amee ñu naqari ci moom lañ koy dem rek wax ko doo leen ci dem si moom da ngeen koy tooñ ak lu mu leen fallo fallo président mooy mooy mooy mooy kon moom mënu nga tooñ non non du tooñ non comme moom mënu nga tooñ moom moo dugg katoñ moo ne jamaay laa wóolu joxal leen ma ko nu jox ko jamaay suñ mënta dem ci jamaay ci Ousmane Sonko la jaar ah oui loolu moo normal loolu euh, ngom ngom ngom bàyyi sa xel mi ngay fooy fa yow moom mel ni sama xol li may wax mooy dëgg da ngay déglu loolu laa gëm man man du ma wax lu ma gëmul li ma gëm mooy Ousmane Sonko moo ne no falal leen ma jomaay no falal ko jomaay tey jii bu ñu amee ñu naqar te gis ñu jomaay Ousmane Sonko lañ koy waxal yow da ngaa feebar réew mi li fi nekk nañ ko wax <laughs> couple présidentiel moo fi eh, am waa dégg Ngom dama bëgg juste que nga comprendre

ngay dégg ay couple ci yeneen ak yeneen couple kay mooy waaw dégg àndandoo ma rek xam nga dañ naan couple xam nga couple mooy deux dañ naan double wala ñu ne doublon waaye boo ne couple ne présidentiel si dégg-déggin bu vrac voilà wala nga ne le père mais couple présidentiel couple la boo ko déggee vraiment da lay yóbbu si côté euh, euh, euh, ñaan ñi ànd waaw moo tax dama lay expliquer pour nga xam pour ñeneen ñi baña bañ la jaxasee ak ak ak ak ak ñi nga xamante ñoo fi parce que bu yàggee manque de respect lay doon si président de la république Diomaye ak le premier ministre lu leer laa lay wax kenn manque leen lu leer laa lay wax wax ne fi am non manque de respect parce que xam nga lan moo may la ma ma ñëw ñoo seqandoo réew mi waaw may la ma ma ñëw de respect may la ma ma ñëw Bassirou Diomaye Faye nga ne du tamit uyu ma ku ma waxal li nga wax li nga wax da nga ne Ousmane moo tax ma ne am na xam nga ni yow nit ki day am dégg-dégg xam nga yow man am naa dégg kii am na dégg moom amul sa dégg di dégg loolu ñoom la mais moom mi ma ma waxal lu ma waxul

dina dina wax rek fal ñu nekk ay sax wax rek ngeen def wax rek waa léegi wax kase ngeen def waa léegi wax kase ngeen wax li nga wax c'est grave li nga wax c'est grave laa wax li nga wax c'est grave xam nga lu gën a lu gën a am solo mooy Bassirou Diomaye Faye mooy président di ngeen ko dégg mu neex la mu naqari la Bassirou Diomaye Faye mooy président ban dëgg yéen neen da leen def laaj réew mi ci dama ne dama ne waa léegi comme ko wax nañ ma njox ñu léegi bàyyi leen ñu liggéey bàyyi ñu liggéey da bàyyi wax ji wax jooju mooy am di wax lu dëgg ba jox la réew doo ko dox ci est-ce que ça va mais est-ce que ça va yow yow est-ce que ça va moo am waaw comme que wax nañ ba ba jël réew am mooy nit ki bu waxee lu dëgg ba jox ko waaw loolu mën a yor ci dëgg dama ne comme que wax comme que wax nañ ba jël réew mi jël leen wax jooju ñun ñi ñun ñi liggéey liggéey leen réew mi wax mënu leen da taxaw fii ne ah. gasoil bi mën nañ ko wàññi ah. nangam nangam ba tey jii dara changé wul ah, ñu eh, ay gatsa eh, ñun gatsa gatsuñu waaw gatsa gatsa d'accord Mara Mara Ngom Mara Ngom

ba tey génnaguñ ci muy walum homosexualité y a de ces termes boo utiliser les gens subitement foofu lañ koy wa waaw déglu waaw dama lay teel a wax pour nga ah, léral wa xam nga man dégg na la tudd baatu couple nobante Mhm. wala kii kii bi cest à ñaar ñu couple di doxal réew mi laa wax man. waaw nel père présidentiel wolof laay wax. wala déglu ma wala ma ngom ngom ngom français nga couple présidentiel ça signifie autre chose. Ah, léegi man li ma bëgg a wax mooy. jëkkër eh, ma ma Mara s'il ah, le père. présidentielle man ni ma ko dégg laa koy wax. waaw ah, moom la moo tax lay wax. lu la tee nga boobu ba tey nit ñi dinañ ñëpp dinañ comprendre. beneen mbir bi mooy wàllum euh, ministre